waaw jërëjëf Aïcha euh, dawal ñun taximaan yi jafe-jafe yu ñu rencontré euh, lu yàgg la mais surtout jamono bii nga xam ne nii ci lañ nekk ndax euh, lu ko indi xam naa ne moo tax sax lu seq ak waxtaan ñi nga xam ne ñoo dëgg yàlla ñoom tamit dañoo seq ak ñoom tali bi ñu nekk ci gi beneen pàcc ñun tamit ñu nekk ci beneen wàll jafe yi rek dama ci tudd ñooy ñi nga xam ne nii ñoom ñooy. application yi. Mhm. Euh, bari nañu euh, coow li bari na waaye dama jàpp ne kenn ku ci nekk rek euh, la nga war a def da nga ko deful ba pare kii arbitré mu jën nekk un téléspectateur ni état du Sénégal surtout ñi nga xam ne ñoo fi jaaroon ñoo fi nekkoon tombé moo a ay gaaf parce que tamit ñoom ñoo tombé ci jamono joo xam ne lu ci bëri lu ñuy. ñaxtu ci yàqu-yàqu ci transport euh, ñoom ñoo ko fekkee euh, bëri na ci loo xam ne sax ñenn ñi euh, ñi ngi leen joxoñ baaraam for nañ ci wéewu bëy que ni am na ci ñoo xam ne ci ñoom am nañ ci ay application te tamit tamit ñenn ci waa état bi waa ci état bi am na ñu ci joxoñ baaraam ne am nañ ci application yi mais lépp rek dañ koy delloo encore une fois ci ministre du transport bi nga xam ne moo fi nekkoon muy Mansour Faye yàgg naa ko ci ay plateau il était incapable parce que euh, ñàkk mën weesuwul ñu jox la loo xam ne nii euh, ñu bëri sax ne nañ bi ñu koy jox ne ne woon na ma mais ñàkk respecté secteur bi dem na ba ci di jox koo xam ne nee na mënuma ba pare nga ne ko teel ma parce que am réew mu mënul dox sans transport bu jaar yoon am réew mu mënul dox sans commerce bu jaar yoon te mun naa ne ñaari euh, ñaari mbir yooyu ma fi lim li gën a yàqu ci réew mi ci la bokk surtout nag sunu bos ndax ñu ñu infiltré ci illégalité dafa bari euh, mun naa ci lim par exemple si vous me le permettez. allez ay war gaynde ñu ngi ci euh, dem naa ba def constat parce que comme que dama am benn concept bu bu ñu wax ñaal ci tali bi en tant que chauffeur de taxi. di bàyyi xel li nga xam ne lépp loo xam ne day gàllankoor dem ak di surtout transport en comme fii ci Sénégal. Mhm. dama ci bàyyi xel. Euh, dama jëloon li nga xam ne ni moom mooy transport urbain euh, bëri na sous région bi te yaakaar naa ñu bëri bàyyiwuñ ci xel sous région bi ñuy jugee par exemple ay euh, Guinée ñuy jugee Mauritanie ñuy jugee ba Gàmbi di def transport interurbain di jugee foofu di ñëw fii ci réew mi di yëpp ay clients di yóbbu. te loolu du ma ne état gisul loolu bu nekkee ne état gis na loolu ba pare bàyyi ko non il est temps que vraiment mais nag bo alhamdulilah ils ont rendu les force nañ leen ko sénégalais yi voté nañ en masse bañ dem léegi nag di ñaan euh, gouvernement bi nga xam ne nii euh, mooy doog ñëw xam naa li fi nekk ci ay dégâts bari na trop surtout suñu bos te xam naa ne il faut qu'on soit un peu patient. parce que affaire yi étape par étape la xëy na dañoo accès guñ ci ñun mais bis bu ñu accès ci transport en yaakaar naa sénégalais yi liñ jot a yenu seen i loxo di jooy dana gën a pire ci transport.